salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéenay safo chaîne bi di Buzz Actu 221 ñu ngi sàkk bu baax ngeen abonné aimé partager commentaire like ndax kat saa su ne loolu dina bokk ci li nga xam ni luñ daal di jàppale la jamono gi ñu waxee ak yéen moom pap Alé Niang daal dina addu jëmee ci ay kaddu yi nga xam ni saa su ne dañ leen ko dëgtal fi nga xam ni moo di Buzz Actu 221 yooyu la kaddu nag da caa jëmale ci li nga xam ni moo amoon ci jamono gi ñu génn ci leen li nga xam ni moo jamante woon ci sénégalais yi ak ci ñi nga xam ni ñoo takk der yi la waaye nag ànd ko takk der yooyu ak ñi nga xam ni ñoo di ay nervi ginnaaw jël loolu sax moom Pape Alé leeral xam le ni boobee mën nañ ne am na bu fekkoon dafa bëgg réew mi la dee tàkk am na ci ab nervi boo xam ni jamono gu ñuy waxee ak yéen daal dinay génn réew mi la waaye ci ginnaaw génn réew ma bi la mën nañ ne ñoom ñaar sëkk nañ ak waxtaan bi nga xam ni yemoon na ci vingt minutes muy nekk ñaar fukk minutes loolee ñaar fukki waxtu ci loole sax mën nañ ne bo yooyu le moom Pape Alé indi ay leeral ba léegi jëmale ko ci nervi yi nga xam ni jamono gu ñu waxee ak yéen commencé nañ leen di leen fay loolee si nga xam ne moo di seen xaalis ginnaaw bi nga xamee daal nañ def li xam moo di ab ñaxtu waaye tamit yemuñu ca mën nañ ne yooyu ba léegi dañaa bañ a joxe li nga xam ni moo di dotation yi nga xam ne joxoon nañ leen ko ci manifestation yi ñuy génn ci ay armes mu nekk yi nga xam ni moom Pape Alé Niang directeur général PDG bi nga xam ni moo fara foofee ca Dakar Matin daal ne addu jëmale ci ak kàddu gi yéeme yu gudd yi nga xam ni saa su ne dañ koy def ak jàngat ak wax yi nga xam ni moom da koy indee ngir tolluwaay réew mi waaye tamit ngir bëgg réew mi la waaye saa sune ngir gis-gis ak gëstu yi nga xam ni da koy def ci mim réew di senegal ca loole sax mën nañ ne dañuy taxaw déglu kàddu yi nga xam ni moom journaliste bu mag bi la wuyootu turu Pape Alé def na ko daal di ñëwaat. xam nga su may wax lii lu tax ma koy wax dafa am nervi bu génn maa ngi séq interview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 kon président xam nga bu baax ne amul benn opposant bu recruter ay nervi amul recrutement nervi ci say ñooñ la te ñooñu dañ laa lor ñooñu defaluñ la de dañ laa lor te xam naa ne loolu bokk na ci li tax nga jël décision na da doon candidat parce que li ñu def dafa ëpp mosuñu koo gis àddina bi yëpp di ko coow parce que li ma lay wax les sept cent députés du parlement xaw ma sept cent xaw du parlement européen sont au courant de tout avec des documents à l'appui président kan moo am sañ-sañ jël ay armes di ko jox ay nervi ak ay ak ñu wane oto yi ñii sa buntu parti président nervi yooyu bu leen police di romb nii te jàpp leen gendarmerie di romb nii te jàpp leen c'est parce que da leen jox ay garantie parce que ki ma defee ak interview wax na ko sax da leen jox ay garantie ferme ne police du leen laal gendarmerie du leen laal kan moo am sañ-sañ ordonné police ak gendarmerie ne leen milice bu ñu génnee bu leen laal kan moo am sañ-sañ boobu c'est pas un opposant président 2021 14 morts ana commission d'enquête bi nga diggoon sénégalais yi parce que damay sukkandiku rek ci sa discours ana commission d'enquête bi nga diggoon Sénégalais yi ba tey jooju ñooñu ñu ngi jooy sa ngéem yaakaaruñ lu dul ci amnistie internationale ñi dee diggante mars mille vingt et un ba mille vingt juin deux mille vingt trois bloqué enquête yi.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 ay xale yu ndaw lañ kon booy wax ne réew mi dañ ko war a teg ci yoon fitna du fi am mais lii yëpp foofu ñu leeral ko ba léegi enquête yooyu France dara amu ci moo ne sa ministre diggoon nañ ko ba ñu waxee gëmuñu ko ay sata ba mu ko mujjee waxit dañ ne bo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 ak ñaan bi nga xam ne dafay këpp gaal kenn dootu ko ñaan ci tefes wala kat kenn du ko ñaan ci tefes loolee la xam ba tax na moom Pape Alé Niang daal dina xamle interview bi nga xam ne def na ko ci lenn ci ay nervi wala boog lenn ci benn nervi lu tolloog ci ñaar fukki waxtu muy 20 minutes loolee sax tey jii bu fekkoon bëgg na réew mi la taal mën na ne da koy jébal ci àdduna wala kat ci fi nga xam ne moo di seenam bi lee ñëpp daal koy dégg ñu gis nii moom Pape Alé Niang jamono gu ñu waxee ak yéen ku daal di bëgg réew mi la ba tax na sax loolee moo waral boobu lay audio wala kat boobu interview wu ko benn yoon ñu gis ni moom Pape Alé kuy daal xamle ak kuy du maytul te mun monte ak jàngam ak li nga xam ni moo di wàcc méccam journaliste bi la jox na ko cër bu baax ngir kat mu daal di yu ni mel waaye moom Pape Alé Niang dafa farloo féetewu bu xam ni moo daal di mim réew di Sénégal ngir kat ab réew saa su ne da ngay nekk ci dëkkwaay ba dëkk bëgg ko dëkk ak ñi nga xam ne ñoo di say nawle say xarit say doom say am di jàmb waaye tamit ci loolee sax moom journaliste bi la loolu moo tax ban daanaka publier benn yoon li nga xam ni ñaan yoon mu daal këpp gaal gi le ndax kat ab ñaan mën nañ ne am na ñaan goo xam ni saa su ne boo taxawee ci ab gaal ba tax na sax moom tapaab ala ñaan non donte mu ngi gi le du nongu mukk benn yoon daal di ñaan ñaan googu ngir kat li nga xam ni di gaal gi waaye nag ci loolee sax la daal ki nga xam ni di njiit réew mi la di président Macky Sall xam ne ñoo di xam ni saa su ne mën nañ ne dara yi teewlu leen lu dul kat ñoom seen poste rek ak seen gis-gis ak seen bëgg-bëgg mu nekk mbir bi nga xam ni moom Pape Alé journaliste bu mag bile daanaka mën nañ ne jàngat bu am solo ak gisin bu am solo loolee la def moom kat bu taxaw ñi nga xam ne dañuy taxaw saa su ne di xamle kii di Pape Alé directeur général Dakar Matin bi dafa nekk nit fitna kon nag ñooñee bu yeboo nañ ko teg ci suuf bu baax a baax ndax kat moom bu Pape Alé Niang bu fekkoon nit fitna la mën nañ ne yooyu la vocal wala kat yooyu interview publié na ko bu yàgg-yàgg waaye nag mu nekk mbir bi nga xam ne jamono na bu baax a baax ba la daa dafay jële ay nervi loolu problème am na bu baax waaye li mun tax am ba am ñoo ngi ñaan ci même réew Sénégal jàmm am fi sax fi yàgg fi ba atum 2024 bi lee di le 25 des 20 février ki nga xam ne moo gën ci Sénégal ci atum 2024 mu nekk président de la République wooyu leen di abonné fi nga xam moo di Buzz Actu 221 ndax kat lu fi xibaar information jàngat ñu leen koy defal asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.